ko génne ci otom nee na c'était pour le sauver d'une mort certaine ndax waa APR yi ñu ngi woon ci kanam ay nervi yor ay ngànnaay bëggoon a jël ba kanam. xam nga moo tax ma ne la vraiment euh, c'est vraiment malheureux et déplorable. Mm-hmm. de toujours être dans la manipulation. beneen bi damay attirer attention jeunes parce que ñoom laay waxal xam nga ce jour là lan benn jàngat laa si am yow tu demandes à nos enfants à nos frères et sœurs d'aller vraiment se donner à la mort. non non non daanaka parce que démb yow. yaa démb wuy ma démb yaa ngi woon démb yaa ngi woon pur. Mhm. lan nga dégg lu mu wax xale yi yéen ngi nii armé wu leen jël leen ngànnaay soo leen demee ngeen sànjaafu gendarme yi sànjaafu policiers yi ñu dem fekk ji président jëlee ko fa. loolu la wax mais yow. et il reste encore libre tu es journaliste. et mais dama ne dama ne dama ne dama man leneen laa xam ne dama ne. non soo bëggee non soo bëggee ma génn la léegi non non non je peux sortir la vidéo tout de suite waxuma loolu dama ne dama ne li may wax bàyyi ma yeggali mhm. dama Ousmane Sonko il a dit ça oui et là il est encore libre de ses mouvements kon dëkk bi on est en sécurité non non moo tax dëkk bi moo xam la xam nga la dëkku liberté la non loolu loolu ah, loolu c'est grave xam nga tax dëkku liberté la fii nañu mars quand il y a eu ces 14 morts c'est la faute à qui à Ousmane Sonko qui a appelé à l'insurrection. ñi dee ay bal moo kay ma waxaat la beneenu li nga ma damay revenir aat si li xew barki démb si euh, tunnel bi. tey tu demandes à nos enfants à nos frères et sœurs de sortir d'affronter les forces de l'ordre tout le mhm. temps nga ni soo demee rey la seen bopp mais yow bi nga xam ne yow yaa di tout le temps woo pour ñu génn di di def euh, li ba force de l'ordre yi ñëwee force de sécurité yi ñëwee yow loo def yow yaa jébbal sa bopp ñu livré la sa kër. lu mu waroon def. mais kaay ma fekkee yow tout le temps da ngay woote ngóora di woote fitna foog naa ni sax soo ñëwee tout le temps tu défies l'État. tu défies la justice foog naa ne am na benn taxawaay bi nga xam ne tey fekkoon da ngay ni yow vraiment yow li ngay woote moo nekk si yow li ngay naan tout le temps les jeunes dem leen xeexi soo nekkee force de l'ordre bi s'engage ko euh, xeexal ak moom foog naa ne jour boobu moom taxawaayam xam nga lan la dafa war a jox cette jeunesse une autre lecture xam nga ban lecture mooy wane kii nii dara jaralu ko bakkanam dara jaralu ko liberté am lu mu soxla mooy lan nekk si jàmb donc xale yi nañu conscient xam ne ki lay woo si fitna moom xeex xaaju sa biy dugg si fitna beneen bi tamit damay wax j'en profite vraiment pour remercier ces forces de sécurité tey ñooñu ñoo tax tey Sénégal egg fii tey damay bëgg vraiment. fi ñu toll pas abusé fi ñu toll dans la bi ñu ko interpellé. xam nga tey euh, yow yaa ko wax léegi ku ñëw nga nekk dans ton véhicule yow nga toog dégg ñu ñëpp ñu setaan mu ne y a des nervis devant man nekkuma en sécurité même si tu de cent cinquante ou deux cent millions. mais benn voiture bip wala GIGN. Mhm. suñu ñëwee ngay la yow yaa nii da nga jàpp ñu nekkoon en sécurité ñëwal nga dugg ñu dem ngay bañ looy bañ. mais la manière te été forte. mais loolu loolu même si la, la mais si la manière a forte mais loolu yoon daf ko may ses force de sécurité parce que il a refusé. de coopérer yoon daf leen ko may loolu noonu. du c'est des lois qu'on applique du li nga xam ne dañ ko ñëw non non c'est pas traumatisant. c'était risqué ni ñu tollee vitre bi mënoon nañu ko tu sais ce qui est traumatisant ce qui est traumatisant. c'est quoi le fait que nga dem dans les Total dans les Auchan dans les Shell dans les magasins nga koy toj. ay perte de biens yi nga xam ne plus de. trois cent déglu ma rek noo déglu ma su paree ñu wax y a des pertes perte perte yi nga xam ne euh, financières yi nga xam ne à des centaines de millions tey emploi perte d' yi nga xam ne à cent cinquante emploi su amee loolu loolu moo gën benn vitre buy jar deux cent mille. je désolé quand nag mais c'est eux parce que loolu moo xew Sénégal mais loolu moo loolu moo xew barki dem mondial loolu moo gën a patent loolu moo gën a restant faut que tamit ñun sénégalais. vraiment ce que mooy yu mel ni bu amee ay pillage daf ciy rax maanaam des sénégalais yoo xam ne ils ont faim ak des voleurs. ils n'attendent que ça. pour pour pour bokk je suis désolé ma waxaat la ko waxaat la ko. quelqu'un tout le temps qui tient un discours tel que bi mu tenir démb chaque fois di inciter ces jeunes à la haine. Mm-hmm. au non-respect de l'état de droit au non-respect de nos forces de sécurité. au non respect de nos institutions. Mhm. naan dem leen taali kër diw dem leen taali kër farba dem leen def lii dem leen taali kër euh, El Hadj gis ngeen ngeen ko maître El gis ngeen ni ñu ko def ci marché bi donc foog naa ni kooku ji def loolu kooku ngeen war a gën a wax waxal lu muy def pointé ko ci doigt ne baaxul kër naan dañoo toj